pour arrêter de faire des choses. dafa ont ci ay jamono pour arrêter li nga xamanteni moy di nga gis ay sénégalais yu ci jamono di pour tabax fi nee ay kër ak ay hôtel ñu choses lolu don na lo ak bi domaine national ou Sénégal domaine environnemental mi nga xamante ni dafay tere lu ñu mel ci yooyu jamono nag ñu nekk ak nga xamante ni ñooy décideurs politiques yi ak administration pour fàttali leen ni mënu waruñu mun a bàyyi kenn mu ñëw fii di tabax li ni mel ndax doon na loo xamante ni doj bi nga xamante ni moo fi nekk doj la boo xamante ni bés bu tasee mën na jur jéey bu rëy ci biir Dakar ak Sénégal beneen bi itam mooy que ni sax li tax fii ñu war fee bàyyi benn nit dong

des mines ministère de l'environnement nan la ñu def ba aménager fii loo xamante dañ ko tuddee géoparc Manam espace boo xamante ni yow ak say njaboot léeg-léeg mën ngeen fi jaar benn samedi noppalu fi jël fi air delluwaat kër ga keneen bu def itam mën a def noonu bu touriste dugg Sénégal itam ministère du tourisme mun na ko xamal ni am na géoparc bu nekk ci Faaru Mamel mu nga ko visiter de visiter aussi monument de la Renaissance de visiter les li nu mel yooyu moo taxoon tey yi doon ay xale yoo xamante ni ay xale forum social lañu ñu mobiliser la ñoom ñëpp volontaire pour ñu xëy ñëw fii ñaar ñetti fan reboiser fii aménager ko bu boobaa nag xëy na kenn dootul am xalaat ni mën naa fi ñëw di laajte jiitu foncier